luñ fa ñaan. amiin mhm. incha allah. Mhm. bravo à vous bravo à toute l' équipe de 2A TV. kuréel Macky laay nduróol merci beaucoup. donc kon week-end bi am naa ko mu nduróol. daay week-end bi donc ça s'est passé. <laughs> alhamdulilah week-end prolongé. alhamdulilah loolu méttiwul. ah su ko revue de presse <laughs> ki nee na kuréel Macky laay nduróol nee na man kuréel Macky laay nduróol Fa Ndiaga bëgg a teel a tëdd. ah ki nee man kuréel Macky laay nduróol mais mais mais euh, macha allah am naa ko mu nduróol kuréel Macky. même damaa bëgg tey laa xam ni yow foo fekkee fu ñu may dóore néewalee doole doo ko doo doo ma jàpp. dama gëmee dama fubali woon démb. Amina Koura Macky lay nuyu. waaw baax na. waaw ñu dem ah ñu dem waaw. Hmm. Hmm. bés bi le jour ñëw ñun ci màggal Touba 2024. Mhm. Touba hausse le ton. lutte contre l'immigration irrégulière et les inondations. Mhm. les projets du xalif au menu xalif bi wax na de. Mhm. waaw wax na kàddu yu dëgër sax. Mm-hmm. waaw ni ñu xool rek nu ñu saafara émigration clandestine bi. Mm-hmm. inondation yi mbënd bi. les projets du xalif au menu. Mm-hmm. lii daal la teg ci table la lettre à la présidence qui crée le malaise au sein du comité d' organisation du Magal lettre ba soo see wax na ci sànq. nee nañ daal ba ci sëñ Bass Abdou Khadre Abdou la ñu waroon couleur débat mu jeex tàq Cheikh Bassirou désavoue Serigne naa Mbacké qui se défend daf mel nag sëñ Cheikhouna woo bind lettre sëñ Bass Abdou Khadre nag moom nee na comme ni ko honorable waxee léegi moom mooy tànk sëñ bi mooy bëtam mhm. mooy léppam mhm. lettre bu jógewu ci moom daal du lettre bu officielle mhm. Cheikh Sidi Mokhtar Kat dénonce le folklore et les rassemblements des hommes et des femmes ah Cheikh Sidi Kat nee na daje ba fay am mu mbaay geeg rumbaay bi góor ñeeg jigéen ñi daal nañ ci jóg màggal du pour lool wax na dëgg bu dee am na wax na dëgg de borom daaru soigne les maux de la jeunesse avec ses mots. borom daaru soigne les maux de la jeunesse avec ses mots. moom jàngoroy xale yi faj na ko ci ay kàddu yam leen. saay bu màggal amee da ngay gis ne dafay sensibiliser bu baax a baax nga xamante ne moo di ndaw ñi je pense que loolu c'est important mm-hmm. bii gis nga muy wax bàyyi leen sichaa yi ngeen di utilisé ak ay oh. ciné barrières yooyu nga dégg ndeysaan ku tebee fële ne sëñ bi man de bàyyi na et je pense que loolu c'est très important parce que bu fekkente ne da yàlla dal def nga nekk nit koo xamante ne boo waxee mu am impact war nga di euh, profiter ci occasion yooyu pour gindiwaat ñi nga xamante ne ñoo la voix des sans voix exactement débordement du fleuve Sénégal affaire Aziz Dabala et Waly Gano le présumé meurtrier et Nabou Leye arrêté mu ngi nii de. moom lañ doon wax sànq. la une de tous les journaux. ah ñu dem. lii kenn xamul lan la. deux minutes pour lire l'essentiel crime meurtre assassinat le sénégalais proie de la cruauté et esclave de l'argent tue froidement mm-hmm. crime meurtre assassinat sénégalais ci boppam. amul dara yërmande ci moom ku kër yàlla et esclave de l'argent day jaamu xaalis jaamu xaalis googu nag ak néeg gi mu néeg moom mooy waral muy rey sénégalais de Fatou Matar Ndiaye faatu Kiné Gaye et Aziz Dabala ont été tués par des proches qui croire kan ngay gëm kan ngay wóolu ñi la gën a jege ñoo lay jëm paaka ginnaaw comment se prémunir nous sommes devenus des Mm-hmm. na waay. yal na yàlla doole sutura. amiin te rafetal rafetal xol yéeme na de ñu dem. yàlla jox ñu ay ay bon cœur. surtout ça. 24 heures ñëw ñun ci publication de deux photos dans l'affaire de l'immeuble qui obstrue la vue aux mamelles Atépa ne lâche pas Madiambal mooy ci immeuble am ba ñu ngi ci. waaw ah, wow nee na Atepa daa bëgg a utiliser pouvoir yi am ci état bi pour pour pour. pour écraser immeuble am. 2013 mhm. 2024. daanaka immeuble ba tax na gisatuñ sax li nga xamante ne moo di monument. moo loolu la ñu wax kon immeuble ba rëy na mhm. sax immeuble baa ngi noonu. loolu mhm. maa boo yéegee ci de temps pour yegg fa. noonu nga. de 2013 à 2024. wax nga dëgg de. Hmm? fii nii monument baa gis nga vue de loin bi day doo gis. Euh, doo gis li lañ naan fatt fépp. 2013. Madiambal moom li. Madiambal moo ko moom kay. Hmm? ana impôt. Cheikh Bamba Dièye directeur AIBD il y a des détournements d'argent à l'AIBD aéroport international Blaise Diagne nee na am na ay luubal. léegi Sénégal fan ban ban. fu amul luubal. ban hmm? structure moo amul luubal soose. ah ah. man de jommi naa. nga ne ko. foo dem foo dem. am na luubal ak njuuj njaaj est xam nga ne maa ngi wax keroog ngeen may retaan mais wóor na yàlla xaalisu état bi nekk ci àll bi taxawaal yëpp bu ñu ko indi woon wallahi pétrole bi argent de poche lay doon. bilaay. non du ay caaxaan. am na wax nga dëgg de foo dem ñu ne la am na problème finalement. Mm-hmm. bien dit Amina. non am na amoon nañ non. dessert lay doon. amoon nañ ay kilifa yu amoon nañ ay kilifa yu mën a. direct news ñëw ñun ci vision Touba Mitla al Madina la forte ambition de Doudou Ka pour la ville sainte. <laughs> kan la Doudou Doudou Ka am na ay yéene yu rëy. Touba moom fële ca Touba. Touba moom su li ma la ci mën a xamal xam nga mooy lan. waaw <clears throat> ambition bu nit mën a am boo fa demee. fekk fa fekk fa xalif bu lu ëpp ambition. billaahi <laughs> ku tabax ku tabax Masaalikul Jinaan waaw. à combien de milliards tabax université Cheikhoul Khadim à combien de milliards mhm. kooku boo ñëwee ak ambition génnee xaalis def ci ndox mi fekk fa ku la ëpp ambition fopp <laughs> fopp et lu xew ci réew mi mu dugal ci alalam waaw <laughs> le grand magal de Touba fait aujourd'hui incontestablement partie des plus grands événements de la planète màggal bi bokk na mm. ci événement yi gën a yi gën a mag ci àdduna bi de kenn du ko werante l'attractivité planétaire de la ville sainte demande la définition de nouvel horizon à la hauteur de la notoriété mondiale de Serigne Touba li nga xam ne màggal gi mu ngi koy woo ci ay nit war na tax ñu gën a ñàkk sëñ bi gën koo xamale nit ñi ca am na wërngal këpp cette grande ambition est réalisable grâce à notre force de mobilisation et par les nombreuses ressources de notre communauté. Mmh. communauté mouride moom participe fortement wow. à l'économie. Sa concrétisation est à portée de main avec un système de financement souverain li tax ñu mën a di def lii dañoo moom seen bopp ci wàllu koppar. koom un système de financement souverain. Mhm, colisé sassi amina innovant et participatif qui prend racine dans notre communauté de destin en tant que fidèle mouride sassi daal moom mën tax lépp di mat ce projet. porteur d'enjeu pour l'avenir de Touba devra être accompagné en renforçant l'accessibilité de la ville sainte de Touba par la continuation du TER de AIBD vers Touba, la construction de l'autoroute Touba Kaffrine pour raccorder Ila Touba à l'autoroute Kaolack Kaffrine Tambacounda. Mm-hmm. dina yombal dem beeg dëkk bi. Mm-hmm. la duudu ka teg. Mm-hmm. yombal dem beeg dikk bi. teg na lu rafet. tali bi nga xam ne lan lañ ko diggante Dakar Touba. ñu laalaat beneen diggante Dakar diggante Touba Kaffrine jëm Tambacounda ndigal jëfe les échos yéen kaay ñëw ñun ci cérémonie officielle màggal de Touba Touba déplore folklore du mois de safar. xalif bi. safar yi kay nee xumbaay mumbaay yi am ci safar yi nañ ko dakkal. comme safar dafa war a jeex. Mhm. ca cérémonie officielle ba la ko sëñ Bass Abdou Khadre xamalee de c'est le 18 safar. jour d'action de grâce qu'il faut célébrer nee na la ñu war a célébrer mooy 18 safar képp le xalif déplore les festivités qui accompagnent le mois de safar nee na lépp li nga xam ne mu ngi doon ay yëngu-yëngu yu ñu def ci safar yi daal wax dëgg mm. yàlla nañ ko tegee côté il fustige les dépenses inutiles point que certains quémandent parfois le transport pour rallier Touba nee na yenn dépenses yi nga xam ni daal wax dëgg yàlla waru ko ñu koy def ci weeru safar mm-hmm. mënoon a ñaar mm-hmm. mënoon jur ak dajale ba nga xam ne daal ñenn ñi ñaan paas dana mën a les échos yéen moom moo koy xam ne deuxième partie les échos yéen kaay Aziz Dabala et Wali tué à Pikine six suspects dont la copine du danseur arrêté. tey yàlla juróom benn nit. ñi nga xam ne njort nañ ni laale nañ ci. Mm-hmm. téye nañ leen ñu ngi ci loxo yoon. Assane Deye considéré comme le chef de gang Assane sant bi dee la commencé nee moom moo jiite gang bi Modou Lo dénoncé par son oncle à qui il s'est confié. lan. nijaayam ba mu waxaloon. moo ko dénoncé voulant protéger ses amis a tout endossé. Nabou. la responsabilité de Nabou elle pas encore totalement déterminée. wàllam ci meurtre bi daal xamaguñ lan la. ñu ngi topp enquête waaw. meurtre de Wally une véritable boucherie dañ ko dogot dogotee. Ah. ajul comme ni def mala. Hmm. ñu dem. yéeme na de. enquête yéen kaay ñëw ñun ci meurtre d'Aziz Dabala et de son neveu l'enquête s'emballe mu ngay dem de six suspects arrêtés dont Nabou Leye ami intime de Dabala ils ont été perdus par leur téléphone borné dans les lieux du crime ce que révèle l'exploitation du téléphone de Nabou Leye les aveux glaçants de ML Diaw sur le mobile et le mode opératoire du crime. Hmm. téléphone ba ci li feeñal mbir yu bari ci la de bu soxna sii di nab mm-hmm. Touba et le nouveau régime une collaboration sous les projecteurs du Magal mm-hmm. lëkkaloo ba mbéyam li soo si wax sànq état dafiy nekkal lépp luy événement bi nga xam ne mag parce que état day am lu mu fay jëlee tamit mm-hmm. daf dafa war a am tamit taxawaay bu mu fa war a am. mais loolu mooy yoon sax fépp Tiwaawan Njaasaan yëpp. yëpp day dugal xaalis ci keesu état bi yëpp. même su ñu doon dugal xaalis sax état dafa am responsabilité pour man. Ah, jël en charge yenn yenn yenn volets yi. Ah, waxantuma laa nag njëriñ bi lay indi. Mm-hmm. waaw waxantuma laa nag la nga ciy la nga ciy ronqee. Mm-hmm. ronqee noonu la ñuy wax ñu dem. yow xanaa xamoo sugu. doon gàmmu si musibaam. yii. xajuñ ci réew mi. loolu dëgg la. xajuñ Kaolack. waa Nigéria. <laughs> waa Nigéria buñ bàbbee ko ne dañuy <laughs> ñëw de. des la Baye am dans le monde. des millions et des millions de bu ñu doon ñëw Kaolack chaque année daa <laughs> jàll kii talibé Baye bi xam na li. dëgg la de lu leer nga wax. gàmmu kanoo ba gisoo ni muy mel. waaw lay la laaw. gàmmu kanoo day ñuul kukku ndax ay nit. tu as l'impression que li sax du ñii duñu ay nit sax. day ñuul kukku ndax ay nit. daal mais ñii est yàlla may nañu ay yàlla may ay mag yu baax nag. wallaay yaakaar naa bu ñu góorgóorloo tuuti rek. jàmm ma naa am kon nañoo mën a baax. Mm, mm. wallaay mën nañ développé bu ñu góorgóorloo bu ñu xoolee rek dañoo war a mën a baax nag. dëgg la de wax dëgg yàlla. am nañu ay modèles yoo xam ne jarul ñuy jéggaani ji. ci nit daal boo ko gëmee da koy roy. yow euh, roy ci ay jikko yu baax. Amina jikko yi si am na loo xam ne question d'humanisme la am na ay dëkk yoo xam ne ay sëtu yonent ñoo fa tëdd ay saaba yonent ñoo fa tëdd dëkk yooyu guerre lañ leen xamee woon lépp question de mentalité la rek ak question d'humanisme leve yéene kaay ñoom ñun ci màggal 2024 qualité des service télécom Free confirme son leadership Orange dans la ligne de mire de l'ARTP waaw firee gën a taxaw de orange dellu ginnaaw ligne orange yi moom da moom lu woon dara dara connexion yi moom on en parle même ñoom ñëpp ah. non non. Eh. ñëpp yem. connexion orange moo rawoon. oh c'était extraordinaire ñi demoon màggale ji xam nañ ci dara. léegi baaxul. mooy connexion bi eh, réseau bi sax pour woote sax problème la. orange tey toog nit ne la woo naa la ba sonn jotuma la. orange orange bi kay moom yoruma beneen ki orange laa yor mais orange bi moom c'était extraordinaire. maanaam baaxoon carré non dafa lankoon carrément. lank bay ah non laajteel ñi demoon nañu. <laughs> non loolu kay c'est réalité. loolu moom defe naa man am na ko ma doon woo benn instant non non non. loolu ARTP moo ci war a jóg. Mm-hmm. ARTP waaw ñu ngi ñoo ci kii fexe ba opérateur yi aussi service bi mu ëpp mu gën a am qualité daal. waaw dama foofu munoo connecté wu munoo xool vidéo. voilà parce réseau bi. te or oh, te te Touba sax en général. c'est compliqué kii Free moo fay gën a loolu. xam nga benn waaye mos na koo wax. waaw ne waa Touba dañoo fidèle. <laughs> Cheikh Ahmadou Bamba la ñuy topp ak Ablaye Wade ak fii. mu ne ñett yooyu moom. <laughs> Touba fidèle lañ. relance bi parti socialiste am la yooyu appel à une nouvelle dynamique. parti socialiste soosu mën na relancer ah waaw ci nag. xanaa rajeunir équipe bi rek. indi ay boy yu waxat ñu jiite. politique xale. waaw ah, mais fekk ñooñu ñu fa ne noonu ña nga fa daal Aminata Mbengue aussi suñu yaay jooju xam nga aussi moom it waaw maanaam am na woon boo ko weesoo rek weesu nga ko. Aminata Mbengue moom est-ce que sang bi ci retraite la gën a jege. waaw ah, franchement ci retraite la gën a jege waaw moom léegi kan sax lay doxee. Ah, waaw waaw boo doon ne kon kii mënatul. Mhm. yenn activité politique yi xanaa mhm. ñu ut ay xale yoo xam ne rek mën nañoo dékkil parti bi. Mhm. loolu tam solution la. l'évidence yéen kaay ñoom ñun ci SNHLM société nationale des habitants à loyer modéré modéré des pratiques anciennes néfastes. lañ ci def daal loo xam ne daal ay kii la lu tegginewul daal wàllu dëkkuwaay. arrestation des suspects ñëwaat na ci du double meurtre accusé ami intime de Dabala levez-vous oh. quel titre. Moustapha ne mi ngi lay nuyu. ñu dem Koura Moussa Faye nee na mi ngi lay nuyu. Ah. ñu dem bay toog l'exclusif yéen kaay ñëw ñun ci la demande de prise en charge des délégations étrangères du Magal à l'hôtel King Fahd Place et l'avis défavorable de la présidence de la République pour rationalisation de dépenses polémique tout bas polémique tout bas. Mm-hmm. waa Touba ñoo laaj nañ présidence nag daf leen wax ne dañuy rationaliser dem maanaam dañu yaxanal. gars yi ñu ngi ciy polémiquer la lettre officielle le refus du palais la sortie du porte-parole et la frustration mouride Madiambal Diagne Baba Aïdara et le partage du document et ou de l'information lettre officielle bi nag li sëñ Bass Abdou Khadre xamale mooy li ñu wax sànq binduñu ab lettre jébbal ko présidence sëñ Cheikhouna Mbacké moom moo bind lettre te binduloowuñ ko lettre mu ngi nii nag nee nañ débat boo xam ne daal la Amina woo ko wax sànq ça mérite d'être dépassé. nee na nous regrettons de ne pouvoir donner leen daal wax dëgg yàlla ñu ngi rëccu daal lañ leen mën a joxee daal li nga xam ne moom ngeen bëggoon Cheikh Bass j'ignore l'origine de cette lettre nee na xaw ma fu lettre bi de je l'ai ni écrite ni signée bindu ma ko moom mooy loxol seen bi mooy bëtam mooy tànkam seen li Cheikhouna mooy wax et celle n'est pas méconnue du comité d'organisation mm-hmm. elle n'est pas méconnue du comité ah. xam nga soo comité d'organisation màggal gi dafa am ay commission voilà commission la commission yi aussi tekkiwul na ñoom dañuy am prérogative de saisir état officiellement. Mhm. c'est-à-dire que bu amee correspondance bu war a génn. commission bi mën na am initiative bi. mais c'est le président du comité d'organisation moom moo koy valider sous le ndigal du xalif. mais est-ce que état bi loolu la xam. procédure boobu lañ jaarul nag. que ki bind. dafa bind en tant que président de la commission. Mhm. mais bi ko Cheikh Omar Diagne di tontu foofu aussi dafa am njuumte. parce que ki ñu ki ñu kooku du mooy président comité d' organisation bi. donc yooyu la mais bref comme jàll na fii bon nañ ko dépassé et que voilà quoi. Alioune Tine c' est Sonko qui normal. Sonko parce que il est le chef. Sonko na gouverne c' chef du kay bu gouverner aayu. Ah. voilà. sur détail. ñu dem. yaa jaata jaay. Mhm. ay message l' indépendant yéen a kaay ñëw ñun ci. 130e édition du Magal de Touba la gloire de Bamba vivifiée ñu ngi dundal ki yomb de mbiram bi mhm. koy dundal des disciples invités à prendre comme viatique les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ñu ngi leen di jàngal la mu jàngale woon de di leen ko fàttali Serigne Bassirou Abdou Khader rappelle l'importance et le sens de la commémoration du màggal nee na mu ngi leen di fàttali de njëriñ li njëriñu Magalu Touba les talibés appelés à participer au projet d'installation de tentes dans la cour de la grande mosquée. et le chemin des travaux du complexe Cheikh Ahmadou Bamba. Le gouvernement disposé à accompagner Touba pour l'amélioration du cadre de vie et du bien-être des populations nguur gi taxaw na temm pour jàppale Touba. Mm-hmm. dëkkuwaay bi gën a baax waaye tamit nekkaayu askan wi gën a ñoom. Mm-hmm. Mm-hmm. Alioune Tine ngi nii waxaat na migration clandestine opération Jokkoo 453 candidats interpellés lu toll ci ñeenti téeméer juróom fukk ak ñett ci ñoo xam ne dañoo waroon dem jàll ci ndox bi téye nañ leen. Mhm. kenn xamul li lal la. waaw dafa am opération effectivement noonu ko tuddee sax Jokkoo. waaw FDS yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci parc yi ak la marine nationale dañu def fusion. c'est très bien mooy opération Jokkoo bi. pour lutter contre l'immigration clandestine parce que ñu ci bari aussi souvent ci àll bi la ñuy jaar pour mën a accéder ci yenn frontières yi loolu bu ñu ko defee dinañ mën a arrêter voilà ñii di yéeg ci gaal yi loolu nag liggéeyu marine la. donc mooy interconnexion bi am ci FDS yi rek pour lutter vraiment contre lii moo tax ñu jàppale 453 la. parce que am na ñoo xam ne sax léegi yoonu suuf yi lañ lañ lañ. waaw dañuy jaar ci suuf. bàyyi nañ sax léegi gaal gi mais yoonu suuf jaar ci suuf effectivement. Mhm. les foyers de cas ñëw ñun ci Alioune aujourd'hui qu'on le veuille ou non c'est Sonko qui gouverne nee na ñu bëgg ko mu neex ak mu naqari nañ ko waxta dee Sonkoy gouverner moi je le voyais bien à la présidence comme directeur de cabinet du président de la République secrétaire général de la présidence comme Jean Collin ou Ousmane Tanor Dieng nee na moom daf koo gisoon daal mu nekk directeur cabinet président bi wala secrétaire général président comme Jean Collin xaritu Socé wala Ousmane Tanor Dieng le maire des taal yi. mukk bu Léopold Sédar Senghor ak bu Abdou Diouf mukk Jean Collin kay xarit lu soose. Jean Collin mi tax Abdou Diouf dàq saa baay. moo dàq lu baay moo wala yéen moo tax Abdou moo tax lu rek xam naa ko moom <laughs> Jean Collin. si c'était le cas. Alioune Tine nee na bu doon la il pas une cette espèce de confusion des rôles. la meilleure place pour Sonko c'était la présidence nee na su toogoon présidence du ñu nekk di jaawale ki lu nekk du ñu nekk di jaawale lu ñu moom. bu nekkoon kii dafa moom lii kii dafa moom lii. bu nekkoon présidence sax lay gën a garaaw. nee na la meilleure place pour Sonko c'était la présidence. fa la waroon ne déedéet déedéet loolu mooy erreur bi. kon tonton Aliou ko fii mu ne mooy place mooy le premier ministre. Sonko bu nekkoon présidence. lu gën a garaaw lii lañ koy waxal. parce que dinañ ne moom moo ne ci suuf. Mm-hmm. c'est lui le président de la république ñuy wax su boobaa. soo est-ce que xam nga ne euh, mm-hmm. Diomaye Faye il est le président le plus chanceux au monde. lu tax ma wax loolu. Mm-hmm. moom Diomaye Faye rek ngay gis ci gouvernement dara xew duñ ko attaqué duñ atta duñ attaqué le président mais son premier ministre la ñuy attaqué. oui parce que ndax dañ naan lépp loo xam ne xew na rek. c'est lui le responsable. parce que gouvernement ministre bi fusible la pour premier ministre bi. premier ministre bi également fusible la pour le président de la république. moo tax par parfois li tax bu ñu la tuumaalee ñu bëgg nga tekki sa ndombo tànk. waaw ah. c' est pour ne pas atteindre le premier ministre. Mm-hmm. tout à fait lu war a daal ci président bi aussi premier ministre moo koy dégg. dégg quoi il est fusible. Mm-hmm. xam nga un premier ministre qui saute moo gën un président qui saute. saute exactement. Mm-hmm. moo tax c' est normal léegi nag ñii moom damaa jàpp ne ci perception lañ na rek quoi seen xalaat la ñuy wax rek. te même waa opposition bi sax bu ñuy wax képp koo xam ne da nga da ngay gis ne du ñu wax du ñu wax Diomaye de mais Ousmane Sonko la ñuy directement. effectivement tu am na ci ne nekkatul mbir yoo xam te ne mbiru politique la wala dara. parce que parce que président ba mu faloo ba léegi. Mhm. attaqué ko fi kenn sur le plan politique. waaw moom mi ngi doxal li mu war a doxal. Mhm. Alioune Tine wax ba tey nee na a intérêt à ce qu'il gouverne dans un contexte pacifié nay ñooy Diomaye où il y a un débat de fond parce qu'aujourd'hui il n'y a pas un débat de fond. mais Sonko nee na moom il est prêt à. il est prêt à débat pour tout. avec tout daal am na njëriñ am nguuf. nee na nag noonu la war a gouverner. loolu rejeter systématiquement les critiques. faire peur aux gens. vous allez petit à petit vers un système autoritaire. ah <laughs> or les Sénégalais sont rebelles à toute forme d'autoritarisme nee na boo nekkee daal. gars yi di la critiquer di dal sa kaw nga koy bañ. ak di tiital nit ñi nee na bu yàggee nga commencé noot nit ñi dictature autoritaire te nee na sénégalais yi gën a bañ mooy autoritarisme. maam Alioune est-ce que commencé wul naa. ah depuis quand la yor position bi sax. ah soose. Eh, ah. non man sama maam la garaawul mën naa ko wax. maam est que commencé wul naa. autoritarisme. ay tooñ lu neex a ngi nii. sama maam la garaaw après dañ lay wax wax nga xam ne politique sax régime yi amul benn régime bu kii dañuy gënante rek boo kii ci lii kii ko ci bee kii ko ci kii ko ci bee. Mhm. il gouverne le Sénégal et en même temps il est le chef de parti. beaucoup demandent personne ne le il faut que ko sorte de cette contradiction <laughs> na génn ci lii mu nekk. mais quelle contradiction moo ma jaaxal nee na daal nit ñi nekk chef de parti nekk chef de gouvernement. mais gis nañu laaj. mais waaye kenn gisul. sugu gis nañ fi ki fi nekkoon président ba pare nekk chef de parti. waaw waaw waaw xam nga kii premier ministre la. waaw gis nañ fi président bu nekk chef de. parti te démissionné wul ba ba jii nii mi ngi nekk. ba bi ñuy ñëw fajaru mu ngi nekk chef de parti. ba 9h39 mi ngi nekk chef de parti. kon d non seulement il y a des détournements, mais des détournements d'objectifs aussi. Ah, mais que la machine judiciaire. Cheikh Bamba Dièye. moo euh, remplacé kan. Abdoulaye Dièye ah. moom kan mooy papaam Cheikh Bamba Dièye. Euh, euh, kii Cheikh Abdoulaye Dièye Cheikh Abdoulaye Dièye. borom Allahu Wahidun. ah waaw moo Allahu ñoo bokk Dièye ak Pélé di Cheikh Tidiane Dièye. ak ñoo bokk seen j ñoo ko wax seen <laughs> ñun ci affaire Aziz Dabala les détails de l'enquête de la DIC ce que Nabou Leye a dit aux enquêteurs lan bu lay wax enquêteurs la l'altercation téléphonique entre Aziz et El Hadj Mamadou Diaw les orientations sexuelles un la menace et l'expédition punitive. ay wax ju ñaaw la doon wax. ki ba pare. ndaw si ah non pas ndaw si. ki ne moo rey ay wax yu ñaaw la doon wax ci Aziz. te ci koo xamante ne dee na ba pare mënul jug tuumaal mënul jug. teggi tuuma yi nga xamante ne teg nañ ko. yal na yàlla dolli ñu sutura. le film de l' de l' arrestation de six personnes dont une fille et les jumeaux oh Magal l'agrément et le décret la journée de dévotion des fidèles les grands projet du xalif waaw la nga xam daal xalif bi yéene na ko ca Touba. les recommandations de Serigne Mountakha sur les safar Serigne Mountakha wax na ci safar yi nga xam ni moom la ñuy organiser commencé ko ci benn fan ci safar. jëmale ko fukki fan ak ñaar ci safar fukki fan ak juróom-ñaar ci safar Pikine un talibé de 10 ans écrasé par un camion. oh. benn sous lequel il dormait oh. da doon nelaw ci suuf camion. Oh.

ñu ngi nii de gars yi privé bi ci lu jëm ci wàllu taal bi nga xam ne war nañ koo taal kii bii ni centrale bi waa jii nii kii mooy DG Sénico mhm. les hommes d'affaires Arouna Dia Moustapha Ndiaye kii mooy Khadim Ba Khadim Ba Abdoulaye Dia borom mbaxana mi mooy Samuel Sarr Samuel Sarr Samuel waa xam moom xàmme naa ko boobu du West African d'accord macha allah créé benn centrale. benn centrale bu bees. mbirum courant bi waaw wàllum courant bi. Alioune Tine nee na Diomaye est verrouillé. di. inaccessible et confiné. dañ koo tëj. ne ko rab. mais bu heure mais bu heure. kenn mënut a jot ci moom. mais bu heure voyage jotee ñu bàyyi ko mais bu heure voyage jotee ñu ko mu dem tukki après ñëwaat ñu confiné waat ko. mais est ce que du est ce que du gars yi dañuy solliciter président mu leen di renvoyer vers le premier ministre. parce que li tax ñu koy attaqué directement nii. vraiment et c' est normal aussi waaw c' est normal parce que ki nga xam ne moom moo assurer la mise en œuvre des actions gouvernementales c' est le premier ministre parce que c' est pas le président de la République propagation des fake news le général Tine menace de sévir contre les les auteurs. waaw waaw jot na de. waaw waaw il était temps. lii taskatu xabaar yi dégg ngeen. non lii foog ñu foog ñu jël ci ay mesures. fake news fake news copier-coller sur certains sites ak plagiat gi nekk ci plagiat yow déjà. dañ la ko tere waroo ko def. ba ñun journaliste yi loolu la ñuy def à chaque fois. wala ñun journaliste ñu jël information yoo xam ne ci réseaux sociaux lañ koy jëlee fiableul amoon source sûre nga jël ko copier ko. di ci débat comme si yow da ko fekk. et sans problème ah. te am dañuy selon souvenir journaliste su lu ci lu bari. nga wax dara ni selon tel journal wala selon. wala tel selon tel. parce que di nga dégg sa parce que bu fekkente ni c'est des propos yoo xamante ni tu n'es pas présent te wóoru la boo koy rapporté da naan selon. Mhm. voilà et d'ailleurs ñu bari selon boobu la ñuy fàtte. Mhm. ok wala conditionnel bi. voilà merci beaucoup. Thierry. Thierry taskatu xibaar yi. merci ci leçon la conditionnel la. conditionnel bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee li ngay wax nii amoo ci certitude. waaw da nga <laughs> seet. wuti na ne ma sa conditionnel la. te mu ne auré. waaw auré waaw. non amee amul. Amina Amina Ndiaye auré pris le sac de. aywa <laughs> ah, ñoo mën a tàmbali. waaw dëgg la ñu xamee réer. ma ñëw mu dëggal wax ci. noo moom mooy suñu kilifa. auré mooy amul certitude ci métier bi waaw. <laughs> mais soxla bu óoree moom bu leen ko di fàtte. tappale weesuwul yow nga sa moroomu journaliste liggéey ba traité benn information yow nga ñëw jël la même information génne ko. ana mérite bi mhm. foofu. Mhm, mhm. bu ñu demee ci cadre écrit foo jamais oublier les guillemets. loolu la ñuy def copier coller copier coller copier coller. te booy reporter des des des propos d'autres les dieux mais faut jamais oublier. site internet a bari. dañu ko ay effectivement ah, ñun ci débordement de la Falémé ak Kidira la situation revient progressivement à la normale bi nga xam daal mu ngi dem ci Kidira noonu nee na situation bi mu ngi ñëw te nga xam ni moom la melo ñu mm-hmm. gën a dem. Màggal Touba Serigne Bass Abdou Khadre loue les efforts du gouvernement pour une organisation réussie. mu ngi jaajëfal nguur gi. très bien. Mhm. loolu am solo. macha allah ñu dem. faaw nga dem pour affaire bi ak ñu kii. Mhm. le quotidien yenn kaay ñoom ñun ci. <laughs> eau assainissement transport hébergement les mots du jafe-jafe yi nga xam ne daal le quotidien yenn kaay nee na ñu ngi koy jànkonteel ca jafe-jafe bu wàllu ndox la ndoxum naan ndoxum sangu bi assainissement ndox ya nga xam ne mooy taataan na ñuy fexee daal bu muy jàll transport dem géeg dikk bi ak nit ñi fa ñuy dëkk. Hmm. am naa amul foo dëkk. man ñu daal ma fu neex. ba ca dëkk grande ferveur dans un contexte hivernal. ay tonton. mbir mi daal buy am daal ci jamono yu nawet lay am. l'hébergement des étrangers crée un malaise ah hébergement bii lay wax. waaw moom lay wax. crée un malaise. onze morts les accidents de la circulation. oh. benn nit sax bëgguñ mu ñàkk ci bakkanam zéro mort lañ bëgg. est-ce possible aussi. oh conséquence des pluies diluviennes à Tamba banaana gaa ngay yàqu de. Oh. ndax ndox mu bëri. Mhm. ndoxum taw bu bëri. montée du fleuve Sénégal Bakel. Matam et Kidira sous la menace na géographie ñëw taxaw li ñen ñoo ci war a wax sax waaw hydrologue bi fleuve waaw hydrologie lay jëf billa jàng naa géographie yow Amina ece suuf yaa ko fa am ñu dem hydrologue bi ñoo ci war a wax normalement waaw bu doon affaire inondation yi ñi géo ñi def géomorphologie lañ ciy wax le soleil yéen i kaay ñoom ñoom tii gaspillage, non-respect de la séparation homme-femme, tam-tam et daf durant le mois de Safar. Le sermon du Khalif contre les délits. Khalif bi ci lii la wax de. kàddu ci lii la ko jëmale. mu mbaay safar gi. moom <laughs> neex. wax na dëgg de safar gi léegi moom. bokkul ci magal dañ ciy nga xam ne ñu koy yàqu koppar. nee na na dakk aménagement de la grande mosquée et achèvement du chantier de l'université la ndigal ndigal jib na de ndigal jib na nan la taxawalee grande mosquée bi ak nan la ñuy jeexalee tabax gi nga xam ne ñu ngi koy tabax université ba ndigal bii la xalif bi jox la ministre de l' intérieur invite les jeunes à bannir l' immigration irrégulière ministre intérieur ba nag Jean Baptiste ba mu fa jëlee kàddu docteur Jean Baptiste mhm. keroog la soutenir teesam mhm. docteur Jean Baptiste keroog bi mu jëlee kàddu ne na lii di émigration bi daal rafetlu. loxo wax na si kay. waaw xale yi daal di delloowaat. delloo si indiwaat seen xel yi te toog. waaw mm. quinze décès dans les accidents relevés par les. sapeurs pompiers mm-hmm. cëy libération yéen kaay ñoom ñu ci enquête sur le double meurtre à Pikine Technopole la DIC sur les traces d'une exécution planifiée di ko ngi topp yoon waaye nag dafa mel ni mbir mi dañ ba mu ñor. Mm-hmm. rek gëmu deux Aziz Ba dit Aziz Dabala la principale cible a été pistée puis tuée en même temps que le jeune Wali six des sept suspects dont les téléphones bornés sur les lieux du crime après avoir échangé toute la journée interpellés par la DIC technologie bi fi mu toll weddi moo fi amatul weddi ay néew woon fii. ah loolu ko koy wax. déw ma woon fii. lu métti métti waxal li xew rek. say jour kii buñ tracé affaire yi dañ xam fa nekk heure fa laajee dañ lay jox chance nga avoué rek. Mm-hmm. ci ay fraction de. arrêté à Touba Mamadou Lamine Diaw de version je n'ai pas agi seul il accuse Ousseynou Diaw qui le réfute de lui avoir remis l'arme du crime et profère des accusations sordides contre les défauts. est-ce que Ousseynou Diaw ko jox paaka bi. naan. doy na moom lañ jàppee jannat maa ngi nuyu mère nen am na conscience tranquille de rey nit ba pare. <laughs> après continuer ne da ngay dem màggal sans problème. ma ne conscience bi mu am moom. Ah. ah. moom man non. soo sa mère bi la nee na. est-ce que waaw ne ko jannatu sa waay ah te demul. te xoolal fekk ñoo toog. tata mi lu ko jaral lii. tataal tataal laa ko war a wax. kii ne ko dalu mu ne ko seen dal dafa sori man mun maa leen foofu te tataal nga Dakar. ñoo toog. ah déedéet tamit. tataal toj ko fi. tataal laa ko war a wax wala maam. ba 9h50 ba 9h50. mi ngi woo yéen maam ndax ma mën koo maame. <laughs> wax maam. maam ne def nga lu la neex. ma ko <laughs> foo dal. mu ne jannatu ma ne ko ne ko fa lañ jàppee waa ji rek Aziz Dabala mu ne waa fi lañ jàppee sax waa ji rek Aziz Dabala te maanaam suñu yaay may dugal ma ne ko yow. Euh. ba ñuy demagul Touba de Nabou Leye dormait sur la scène du double homicide. Ah, oh. borné. man loolu dafay métti sama bopp bi bizarrement. téléphone ba fa la nekkoon. Ah, waaw. non je te jure l'histoire de Nabou Gueye Nabou billaay. yow xamul gars yi ñu xarañal. yàlla baax na xanaa luñ bëgg lu xam. mais luñ bëgg a xam dañ koy am parfait. et maa ngi koy ñaanal yàlla mu bañ cee takk ni de près ni de loin espérons que dafa def ay fausse déclaration voilà mais sinon. da ngay weex li ba tëdd ca naaj rek waaye buñ la tegalee affaire yi nii. Sur la base de preuves techniques et d'échanges avec les mises en cause, la DIC la soupçonne d'avoir livré Aziz Dabala avant de faire semblant de découvrir les deux corps sans vie. mais Socé parfois. lan amul ñoo xam ne euh, reviens sur cette phrase. surtout mhm. wala dama bu ñu rek cas libération. may ko mu ñëwaat. sur la base des preuves techniques et d'échanges avec les mises en cause la DIC la soupçonne moom Nabou. Mhm. d'avoir livré Aziz Dabala avant de faire semblant de découvrir sans vie nañ moo ko tayal. Hmm. cey. mais pour Socé li ma bëgg a laajte. moo ko dugal parfois amul ñoo xamante ne. soit dañ leen di questionner ñu tiit ba wax loo xamante ne peut-être. waruñ ko woon ami xam nga sama xel si lan la dem. frère non en fait division des investigations ñoom dañuy investiguer rek enquête la ñuy def mais enquête yi état bi dafa dafa mettre à leur disposition des outils yoo xamante ne civil yi amuñu ko. ñu laa doon expliquer fii. waaw yenn logiciel yoo xamante ne c' est strictement militaire. civil sax waru koo am c' interdit kon ñoom seen enquete mën nañ laa nag yow mën ngaa tiit. tiit wax loo xam ne waroo ko a wax. waaw waaw mosuma dem dig. ñu hmm. yóbbu ma fa ma jànne. nga patiné ne bañ dugal ma ci rek. waaw mais ñoom ñoom ñoom aussi l'erreur ñoom aussi dañ lay may dañ ko dañ koy def en présence de ton avocat duñ la entendre mukk hmm. sans la présence am euh, ah, sa avocat rek moom moo war a wax ak yow waaw dalal sa xel préparer say réponse ak yooyu hmm. mais gars boo jàkkaarloog ñoom faaw nga tiit de loolu mënu cee ñàkk maam Ndiaye wax na faaw nga tiit maam Ndiaye wax ko xale bu. affaire yàlla mu ne ma xee. booy mooy jàkkaarloo ak xam nga dig xam nga si affaire Naboulaye bi. Hmm. Euh, frère dañ ko jox kàddu ni ko nabule miñ ciy tuumaal mu daan ni Naboulaye tey suba ba ginnaaw suba def nañ ko confiance parce que yàgg na ak te ku taxawu Aziz la. donc tey jii bu fekkante ni euh, au cas où enquête bi dafa prouver le contraire euh, sa famille aura une déception totale Malheureusement. Le mobile du crime prend forme. La DIC pose les derniers actes avant la présentation des mise en cause au procureur. Au moins trois plaintes après la diffusion sur TikTok de photos de personnes n'ayant rien à voir avec l'enquête. merci beaucoup. Ah, bu ndaw si da cee bokk. ki doon wax plainte bi dina am effet est-ce que bu dee waa ji extérieur la ne. ah nag attention de mën ngaa ñëw ñu ne la ci jàpp de. à tout baa ngi fi. moom dañ lay xaar saa yoo ñëwee mën nañu. mais xam nga problème bi mooy. est-ce que ñooñu est-ce que ñooñu ñu ngi ñëw ci réew mi sax. ah, ah ñëw ba ñibbiwaat. ñëw ba ñibbiwaat. kooku li mu yor ci ay plainte li ñu ko li ko fi xaar. ñu ko plainte kenn daa xam ne mu toll. mais xam nga problème bi li soo soog. lu tax duñ ko jàpp ñun ñoo leen di encouragé. ñoo leen di seetaan ñoo leen di doole. soo moytuwul ñoo leen di jox xaalis bu leen wax. bu leen moo xam ñëw na fi de mais. ku taal sa live bis bii. xoolal la live xoolal zéro heure dégg na hmm. soose li mu xool soose ak Amina Sy li nga ma doo ñaari si nangam ak nangam. naa taxaw ne soose woo na ma. buñ la xamul neena ma baal ko. te li gën a garaaw mooy buñ la xamul waaye nag dina kii fekk yow soo moytu am na loo ko jox de mais beneen condition dal naan dag may jox mais da ngay taxaw wax mm-hmm. bu dee mënoo wax la ngay jox peut-être ëpp. buñ la xamul dañ lay sosal te loolu moo ci gën a dangereux. moo tax fii bu amul mental. ñu dem dëkk bii lii quotidien yéen kaay ñoom ñun ci cent trentième édition du Grand Magal projet d'extension de la grande mosquée dañ koy yokk de Touba fois encore plus grand waaw Serigne Bass Abdou Khadir le projet d'extension va inclure l'installation de parasols et de climatiseurs destinés à améliorer le confort des fidèles war na mën a nekk de mhm. l'impossible n'existe pas billaay ni climatiseur à améliorer le confort des fidèles il plaide pour la finalisation des projet comme le Daray comme le Daray Cheikhul Khadim lii mën na nekk. Mhm. mën na nekk. l'impossible n'est pas mouride. walaay dañ koy def sax. le plus grand rassemblement du monde fële la lay am Karbala mu ngi tombé sax vingt safar mooy surtout yonent bi ñu rayoon jour Tamxarit Ousseynou mais y'a tout là-bas tout. danañ ko def de. moo tax ma ni war na mën a nekk. kii la volonté la rek. Mhm. sugu Massalikul Jinaan 22 milliards lañ ko tabaxee. milliards c'est ko tabax. Mhm. te lii du dara par rapport ak Massalikul Jinaan par rapport ak Massalikul Jinaan mhm. mën na nekk ak mën a nekk. Ah, lu mën a mel a mel te nag gis nga man damay encourager nit ñi dañuy def yi yii dafa baax. muy par exemple su ma gisee nit ñi vraiment taxawaay bi ñu am ci jumaay Tiwaawan ji waaw yooyu dafa baax. parce que ah. boo bokkee fenn wax dëgg yàlla da la war a jaral aussi. wane Pastef ngay dugal loxo ci poche di contribuer waaw loolu dafa am solo. ñu dem Alioune Tine fondateur d' Africom. Africom Jokalante Jokalante nee na Sonko moo tënk Diomaye. ñu dem <laughs> dem naa yéen a kaay ñoom ñun ci. bëgg a dóor Alioune <laughs> moom pare na di. kon dina libéré Diomaye. nouvelle opposition politique au Sénégal les blocs idéologiques impératif existentiel. ñu ngi koy togg. keroog junj. xaw nañu tëmm. un impératif existentiel Karim Wade Idrissa Seck Omar Sarr Khalifa a Sall Aminata Mbengue Ndiaye Aïssata Tall Sall. Karim ñëwul waay Aïssata Tall Sall ngeen trop. ñi ma fi gis ñëpp suba suba entre en jeu. Karim ñëwul waay Aïssata Tall Sall ngeen trop. dé tamit nag. la gën a jege. Karim ñëwul. moom bi retraité la gën a Omar Sarr bokkoon na ci mag. Omar Sarr tam bokkoon ci mag am na tamit Ndiaye tamit waxi. xalifa la jëm. Eh, eh, eh. na Kanje lay xalifa foog xalifa lu ma opposition. opposition la ko taxawaayu kujje la taxawee. nee ko loolu est ce que moom yoon na jógee xalifa lu muy xëddee. ay salaat la lu mu waxoon sax moom. kànje ak tomate kii. Hmm? ma ni ko bësal yow. affaire ONAS gate le silence troublant du tandem Diomaye Sonko la xew ONAS coowal ONAS ba. Mm-hmm. nee noppi pacte bi nga xam ni Diomaye ak Sonko ànd nañ ko ci moom. Mm-hmm. yéeme na rek. Mhm. Pedro Sanchez daa war a ñëw Sénégal. visite officielle waaw. point actu ñëw ñun ci prise en charge des invités du Magal la lettre de la polémique. oh. toto père. Serigne Bass Abdou je n'ai jamais écrit de lettre encore moins le khalife général. wóor na yàlla musuma sugu. loolu la porte-parole bi wax. sugu xamoon naa ne tonton père ci ci lii la. musuma bett. c'est que moom damay wax mu a défendre honorable naan doo ko dootul euh, mooy wax ba tey neexut a défendre si on avait sollicité Pedre tonton Pedre neexut a défendre si moom mooy wax le mu ngi nii de le point actu si on avait sollicité les autorités elles allaient l'exécuter Serigne Bass Abdou Khadre dafa ni bindu ma lettre xalif bi bindu lettre te ñun su leen laajoon dañ koy dañ koy def ci gàttal Serigne Cheikhouna Mbacké moom nag si je n'avais pas cette autorisation jamais je n'allais procéder de la sorte nee na moom su am loolu ndigalu bind lettre ah. du ko bind mbir am na de entre Serigne Cheikhouna Mbacké ak Serigne Bass Abdou Khadre mais d'où vient cette ndigal non le refus de la présidence qui invoque la rationalisation des dépenses présidence nag ñoom bi ñu waxee dañoo ne dañuy yaxanal qu'on le veuille ou pas c'est Sonko qui gouverne oh. ñu dem révélation yéene kaay ñëw ñun ci meurtre d'Aziz Dabala et son ami des fuites ou intox inacceptables plage de Guéréo trois amis perdent la vie par noyade am na dégg naa benn mbër bu ci bokk de su ma juumul ci plage bi lañu wax dañuy moytu géej pétition sur le scandale à l'ONAS Socé. Mhm. Nailer compte déjà presque 74 000 signatures. Ah. Nailer ñoom am nañu lu toll ci 74 000 signatures pétition. Mhm. nañ ONAS bi dafa war a leer. fooyewu ma ko sax. tournoi de qualifi de préqualification à la coupe du monde de basket les Lions tombent en finale devant la Hongrie dem nañ ba finale Hongrie dóor leen ñu def. double meurtre à Pikine le présumé meurtrier de Dabala et Wali arrêté à Touba waa ji Touba lañ ko jàppee jannat yow nga def sa lu ne nga dem Touba sëñ baale léegi ñu weer sax nee naa bu enquête amul sax dina dem ak conscience bi. ministre de l' intérieur bi da wax na na li nga xam ne moom la sëñ bi jàngale waaye tamit li nga xam ne état bi pare na pour taxawoo ko si Touba. Mhm. Aïssata Tall Sall. kii kuréel lay nuróol. mi ak jàmbur nuyoo dëkk kuréel source A ñëw ñun ci Ndiaye Diatta Ndiaye passage du terre à Sébi Xotaan l'enfer de Sébigar obligé de faire un détour de plus de quatre kilomètres pour accéder à la route nationale les malades les femmes enceintes les mm. enfants les plus vulnérables sont incapables de supporter un tel exploit oh y a urgence terre buy jaar foofu noonu bi day kii de. yaa urgence sax ma ne urgence am na ci loolu. waaw urgence day am foofu de. Mhm. bu boobaa dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy wër. Mhm. waaye lu toll ci quatre kilomètres pour mën a yegg ca taliba route nationale bi ñi nga xam nag dañoo feebar jigéen ñi nga xam dañoo nekk ci ay diggante les enfants les plus vulnérables mhm. du ñu mën a dékku lool de entre la hausse du coût de l'eau convoyés par les charrettes et les prix du transport les populations ne savent plus à quel sens se vouer bandit que la contrainte majeure est liée à la déperdition scolaire des enfants pourtant seul un arrêté peut sauver ces âmes perdues ah bon nañ pour ñii nii nii nii mën a ñëwaat il faut que teer am fa de le député Moussa Diakhaté sur sa demande de mise en place d'une commission parlementaire sur la situation de l'ONAS les raisons dévoilées li tax mu ko pour ñu def benn commission parlementaire ci coowal ONAS waaw mhm. sur les routes du Magal 551 victimes juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn dont 540 assistés dont juróomi téeméer ak ñeent fukk yoo xam ne daal wax dëgg yàlla ñu ngi ci lalu hôpital ak fukk ak benn yi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan loolu la sapeur pompier joxe comme ab bilan. la yàlla yaram hmm. amiin aussi. amiin tane ba mën a delluwaat seen. amiin ñu dem. Sud Quotidien yéen kaay ñëw ñun ci Air Sénégal SA une compagnie en zone de turbulence mu ngay yëngu de fa mu nekk baaxul de Air Sénégal bu soose. Air am na ci daal. yes chicken. Hmm. déet xaalis bu bor waaw bu bëri sax. Mm-hmm. une compagnie en zone de turbulence. Kamala Harris officiellement investie par la convention démocrate teg nañ ko de. tribune yéen kaay ñëw ñun ci Jaraaf Alassane Ndao SG syndicat travailleurs BTP des centaines de milliers d'emplois sont en sursis nee ay liggéey yu ñuy waaj a ñàkk de. Mm. fële ca BTP le BTP vive les pires moment de leur existence les BTP. Euh, l'état de la dette intérieure due par l'état du Sénégal est le facteur numéro on de la léthargie du secteur ah nekk bor bi nga xam ne état Sénégal yore nañ leen. Mhm. moom moo jur lépp lépp lépp lépp li leen arrivé. plus de trois cent voire trois cent cinquante neuf milliards sont dus aux entreprises majeures du pays. Mhm. lu toll ci ñetti téeméeri milliards yoo xam ne amee nañ leen ko pour que le secteur du BTP national puisse tirer son épingle du jeu il faudra forcément que la dette. intérieure soit intégralement réglée et qu'une part des gros chantiers leur soit réservée il faut que ñu régler bor bi nga xam ne état bi am na leen ko waaye tamit état bi au delà de bor yooyu mu leen ameel mu leen di jox ay chantier loolu la tribune yéene kaay wax Alioune Tine a ngi nii Bougane qualifié d'opposant poltron Bougane Gueye Dany promet de répondre à Ousmane Sonko. Euh, ñu dem est-ce que duñ ko teree wax. le tandem Diomaye Sonko recevait les héros de la communauté mouride sant nañ leen gërëm nañ leen de le gouvernement dirigé par président Diomaye et son droit Sonko a récemment été l'objet de remerciements chaleureux de la part de la communauté mouride et du khalife général des Mourides ces remerciements interviennent à la suite d'une série de réalisations qui ont largement dépassé les attentes de la population en particulier dans le domaine de la santé de la na ci ay taxawaay bi ñu am ci màggal bi ci lu jëm ci wàllu ndox ci wàllu sécurité ak ci wàllu feebar mën a faju ñu leen di jaajëfal di leen sant ñoom ñii di président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko Vox Populi ñëwoon ñun ci meurtre d'Aziz Dabala des rebondissements inattendus la ci ñëw wax dëgg yàlla kenn xaar ko yuuxu dana jug fañ ko foogeewu ñu dem war fu quotidien ñoom ñun ci attaque et menace premier ministre Sonko toujours dans la peau de l'opposant nee na Sonko ba tey daa mel ni kuy opposé wu <laughs> Mamadou Sy Albert c' une grosse erreur nee na lii njumte bu rëy la Sonko di taxaw taxawaayu opposant Alioune Tine pointe une confusion déroule entre Diomaye et son PM nee na mbir yi dafa jaxasoore Sonko Diomaye kenn xamul kuy diriger daf mel ni Sonko koy diriger ndax Sonko daa nëbbu Diomaye yoor yoor yéen ñoom ñun ci prédation foncière à l' la gendarmerie nationale EOGN mille quatre cent mètres carrés d'une valeur de un milliard attribué à Farba Ngom par Macky Sall. coow suuf bi ñëwaat na ne lu toll ci junneeg ñeenti téeméeri mètres carrés boo ko doon xayma ci suñuy koppar mat na un milliard moom lañ jox Farba Ngom ku ko ko jox Macky Sall. Farba député. sept parcelles de deux cent mètres carrés du titre foncier. 7105 MDA ont été attribués à Farba Ngom il s'agit des parcelles numéro 196 197 117 118 119 120 et 121 dans cette zone stratégique située entre la cité Avion et un peu plus loin de la mer les 200 mètres carrés se vendent entre 100 et 150 millions juróom-ñaari parcelles yu 200 mètres carrés titre foncier moom lañ jox Farba Ngom numéro parcelle yaa 197 196 117 118 119 120 ak 121 muy juróom-ñaar waaye zone boobu ni mu tegoo moo baax te mu ngi nekk ci diggante cité avion ak tuuti ci géej gi diggante cité avion géej gi 200 mètres carrés yi ñu ngi koy jaay lu toll ci 100 millions un ancien directeur général de la police nationale. des parlementaires et d'autres membres de la paire bénéficiaires du titre foncier on cinq hmm. am na kenn koo xam ne directeur général police nationale la woon ak ñoo xam ne ay député la ñu woon ak ñeneen ñu bokk ca APR am nañ ci. Hmm. Mahmoud Saleh attributaire de deux parcelles de cent 201 mètres carrés et 253 mètres carrés sur titre foncier situé <laughs> sur le périmètre de l'aéroport Léopold Sédar Senghor xam nga soose doon na fa coo coowul suufu aéroport bi Mahmoud Saleh moom tamit. ba mu sotti. dañ laaj rek. ah. ah dañ leen laaj rek bu doon niñ ko amee jaarul yoon ñu nangu ko loolu rek la dem. 1400 mètres carrés loo xam ne boo ko doon xayma 1 milliard la dañ ko laaj ci yan condition lañ ko ko joxe ak bu jaarul yoon ñu nangu ko ci moom. yéeme na de ci yàlla suñu borom le record yéene kaay ñëw ñun ci basket mondial les Lions tombent en finale contre la Hongrie Chelsea doublement décisif Jackson réplique à Obi Mikel nee na ko tëjal sa gémmiñ Jackson daa dugal Obi Mikel danoon Jackson daa mën a rate day rate rek <laughs> Jackson dugal ne ko tëjal sa gémmiñ ñu Afrique dañuy xool lu ñuy tax gënee taxawu Afrique waaye africains yi ñoom ñooy critiqué seen biir Lamine Camara tamit daal dugal waaye dañ ko ruus ci fin temps Mikayil Ngor Faye dem na ren jóge na Barça ñu dem. Mhm. daal mel daaneel nga de. daa des daaneel nga de. Mhm. merci maman Siré Tamba. jaajëfal nañ la bu baax a baax macha allah. le grand professeur. Ah. def nga loo mënta miin ko. réew de tiir damaa sonn sax tey. suuf si suuf si yëpp. maanaam da ko kii. suuf si yëpp mëq nañ ko soos. <laughs> suufu dëkk bi yëpp nañ ko man mii bëggoon kër Dakar maanaam mujjee dem Kaolack rek. ndax la ah suuf dafa ah. amati Dakar. si yëpp mëq nañ ko. voilà yàlla mbaax. merci beaucoup Sougou mën nga.